noo ngi yëkkati ay kàddu ci turu Serigne Abibou ci ni ko Serigne Abdoul Karim waxee ci lu gàtt yëkkati kàddu yi cant jëmee ko ci Cheikh Mouhamadul Mountakha mi nga xam ne moo joxe ndigal ci liggéey bi teg ko ci loxoob sëriñ Abdoul Karim ñoo ngi koy siyaare bu baax Mbàkke Balaay sa ndax bi liggéey bi duggee ci loxoom la ko daal di jël ci anam gam ko war a jëlee ci matale ci lépp ci la daal di jëlee lépp lu ciy xéewal mu warlu ko ca bis bi ci la daal di jëlee indi fi lu tolloo fukki junniy garab yabal fi mbooloo mu bari ñu war koo taxawee na ko baaxoo taxawee kon sëñ Abdou sëñ Abibou nee na mi ngi sant sëñ Abdoul Karim bu baax baax ci taxawaayam bii non nii lay sante mboolem Baye Fall yi nga xam ne ñu ngi fi ci njiital sëñ Fallou Fall ak magam ju tedd ji nga xam ne mooy mooy mbokkam yi nga xam ne ñëpp daje nañ fi ak sëñ Abdou Latif mi fi teewal Cheikh Mouhamadul Moutakha ñu ngi sant ñu ngi ñu ngi sant bu baax DG sant bu baax monsieur le maire di wax ne Touba ca kanam moom yéeneem mooy ànd ak kilifa yii fas yéene fexe ba dëkk bi doon dëkk bu naat ba lépp loo xam ne mën nañ koo jëlee ci naataange ci dëkk Touba nekk ca kanam jërë ngeen jëf. maa ngi sëriñ bi nee na mi ngi nuyu mbooloo mi fi teew ñëpp. leen xamal ne. di leen xamal ne. ay yoo xam ne. ay taalibe ñoo fi ñëw yoo xam ne. seen sëriñ. seen sëriñ. moo leen jox ndigal. moo leen jox ndigal. leen liggéeyloo. di leen liggéeyloo. muy sëriñ Muntaxa Mbàkke. muy bi mu wooyee sëñ Abibu Mbakke. sëriñ Muntaxa bi mu wooyee sëñ Abibu Mbakke. sëñ Abibu mi nga xam ne. sëriñ Abibu mi nga xam ne. moo jiite Touba ca kanam. moo jiite Touba ca kanam. xam ne lépp lu ñuy def ci lu mel nii ci Touba. nga xam ne lépp lu ñuy def ci lu mel nii ci Touba. Touba ca kanam. Touba ca kanam. moo koy def. moo koy def. mu woo sëriñ Abibu. jox ko ndigalul. jox ko ndigalul. ñu jëmbat ay garab fii. ñu jëmbat ay garab fii. ci dëkk bi ci bu ñëw waxtaan ci ak man. ne ma nag. ne ma nag. danaa ci waxtaan ak yow. danaa ci waxtaan ak yow. ndax damaa gis ne. ndax damaa gis ne. taalibe nga boo xam ne. ku sawar ci liggéeyal sëriñ Tuubaa nga. moo tax ma wax la ko. nga jàpp ci liggéey bi. nga nga jàpp ci liggéey bi. ñu bokk ko liggéey. ñu bokk ko liggéey. waaye tuuti lañ ci teg. waaye tuuti nag lañ ci teg. Serigne Cheikh Abdou Latif ñëw. wax ma ne. wax ma ne. sëriñ bee ko sëriñ bi moo ko yónni. sëriñ bi nee na. wax ko ne ko sëriñ bi nee na. moo waroon a ñëw ci njëmbatul garab yi. teg garab gu njëkk gi. teg garab gu njëkk gi. jëmbat ko jëmbat ko. waaye yebal naa la. waaye sëriñ bi wax na la ne yebal na la. ma teewal ko fi. ma teewal ko fi. defal ko loolu. defal ko loolu. waaye na nga jaar ci waaye nag nanga jaar ci sëñ Abibu. wax ko ko wax ko ko. doora jàll ci Abdul Karim. doo doora jàll ci Abdul loolu sax nee na loolu sax lu xoromu da cee am. ndax sëriñ Abdou ndax sëriñ Abdou Latif. booba dafa guddi guddi goo xam ne. booba dafa guddi guddi goo xam ne. jàppoon na ne. jàppoon na ne. dafa war a bàyyi ba suba. dafa war a bàyyi ba suba. suba teel. suba teel fajar fajar. mu ñëw jox ma ndigal li. mu ñëw jox ma ndigal li. ba mu ko waxee sëñ Abibu. ba ko sëñ Cheikh Abdou Latif waxee sëñ Abibu. sëñ Abibu ne ko. sëriñ Abibu ne ko. demal ne ko demal rek. demal rek. boo fekkee mu fatu. boo fekkee mu fatu. nga woo ma wax ma ko. nga woo ma wax ma ko. ma ñëw fëgg ma ñëw fëgg ko man. waaw ndax sëñ Abibu li tax mu wax loolu. ndax sëriñ Abibu Mbàkke li tax mu wax loolu. xam na ne. xam na ne. bu ma yëgee ne. bu ma yëgee ne. sëñ bi yónnee woon na fa. sëñ bi yónnee woon na fa. te yëguma ko te yëguma ko. mettit bi ma ciy am. mettit bi ma ciy moom la sëñ Abibu xam moom la sëriñ Abibu xam. moo waral mu ne ma ñu danaa ñëw fëgg la boo danaa moo waral mu wax sëñ Cheikh Abdou Latif ne ko boo demee fekk mu fatu man danaa ñëw fëgg ko man. loolu day sëriñ bi nee na lu am solo la. mënees na cee xam taalibeeg sëñ Abibu. nee na mënees na cee xam taalibeeg sëñ Abibu Mbàkke. ak pas-pasam ak pas-pasam. mënees na cee xamee it ni ma gisee man. mënees na cee xamee it sëñ Abibu ni ma gisee man. bu ma bu fatu nga woo ma nee na wax jooju wax ne sëñ Seex na ko boo demee fekk mu fatu ma ñëw fëgg ko man. loolu lay tekki nee na loolu lay tekki. léegi nag léegi nag. ñëw nañ. ci liggéey bi nga xam ne. ci liggéey bi nga xam ne. moom la ñu sëriñ bi sant. garab gii nga xam ne moom lañ jëmbat. garab gii nga xam ne moom lañ jëmbat. yóbbu nañ ko démb ci ngoon. yóbbu nañ ko démb ci ngoon. ci sëñ bi ci sëriñ bi. mu ñaanal nu ci mu ñaanal nu ci. ba garab gi màgg. ba ko bëggee niñ ko bëggee. moo ki moroomam moo ki moroomam. ñaanal nu ci itam. ci itam. aajo yu faju aajo yu faju loolu lépp sëñ Muntaxa def na ko. loolu lépp Cheikh Mouhamadul Muntaxa def na ko. garab nag moom. garab nag moom. daanaka waxtaan ci. daanaka waxtaan ci. jaru ko jaru ko de. ndax garab. ndax garab. adduna bépp. muy ñu ñuul ñi ak ñu weex ñi. ñëpp xam nañ njëriñ. ñëpp xam nañ njëriñul garab. kooku jarul jarul sori kooku day sëriñ bi nee na jarul sori ci wax ji. garab moom. garab moom. njëriñam. njëriñam. ñëpp a ko xamandoo. ba ci garab ga ci àjjana. ba ca garab ga ci àjjana. ba ci garab yii nu nekk. ba ci garab yii nu ne. yëpp yëpp. lenn njariñ la lenn njëriñ rek la. manees na cee xame it ne. cee xame it bu baax bu baax. na ndigalul sëriñ Muntaxa. Muntaxa. ci garab ci garab. ni mu ni ko ñëpp xamee. ni ko ñëpp xamee. njëriñam njëriñam. ndigali sëñ Muntaxa yëpp. sëñ Muntaxa yëpp. noonu la amee njariñ noonu moo tax moo tax. liggéey bi liggéey sëñ bi di liggéey. li sëñ bi di liggéey. lu. sa liggéey bi sëñ bi di liggéey lu. ci garab yi ci garab yi. liggéey bi muy liggéeyal sëñ Tuubaa ci dëkk bi. liggéey bi muy liggéeyal Cheikh Ahmadou Bamba ci dëkk bi. njëmbatul garab yi ci la bokk. njëmbatul garab yii ci la bokk. moo tax moo tax. mbir mi kiimaane na tey. mbir mi kiimaane na tey. waaye waaye baatam baatam rek tax mu kiimaane. waaye nag baatu Serigne Mountakha rek moo tax mu kiimaane. jërëjëf ngeen jëf. léegi. waa xaaral tuuti. léegi. léegi. ñoo sëñ sëñ sëñ ñi ngi gërëm sëriñ Fallou Fall mu sëriñ Mourou Aminta Fall. mi fi teew mi fi teew. teewaaleel fi Baye Fall yëpp ñoom ñi nga xam ne. ñoom ñi nga xam ne. ndigalul sëñ bi rek a leen ñor. waaye ndigalul sëñ Mountakha nag. lu ma tële tële. lu ma tële dem nag. jërë ngeen jëf